mais excellence nuyu naa la. oui maa lay fay euh, mon frère. mu sell. maa ngi lay nuyu bu baax a baax te rafet xel. <laughs> baax baax. mais excellence. oui. te réew mi. Hmm? dafa am loo xamante ni xew na fi. te xam nga mënuñoo wax te duñ wax si politique. te duñ wax sa kër. ni xanaa yëgoo la xew tey ci réew mi. li ma xew ci réew mi tey. ah excellence tu es informé bi. waaw mais la mën ma xam lépp nag ndax du ma yàlla. waaw waaw excellence yëgul ne Amadou Ba day fat day bat daaram tey. ah franchement je suis au courant. nga ni. wallaahi azim xam nga nag euh, nekk moom lu ñu la yëgulul ak loo yëgul. Hmm. boo demee toj ay kaas. Hmm. ñu boole la kaas yi rek jëm la ko yóbbu la wax dëgg yàlla yóbbu ma ko ah maa ngi koy ñaanal ñaanal une très bonne chance. Hmm. yàlla ko dafa jàmm. li ci jublu moo ko xam. yal ko ci yàlla may ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Mhm. noo gisee génnam ci APR. ah il a droit il a plein droit parce que franchement <laughs> am na droit parce que boo ñëwee li ma dégg ci ay xaw ma nag parce que man dégg naa. ci ay wéy ci ay wéy béy lu bari li ñu ko xeexee biir APR ba pare fal ko teg ko ba pare jiital ko faqastal ko. Mhm. waaye mm, Amadou aussi dégluwul. Mhm. Amadou mënoon nañu ko jiital faqastal ko ba pare mu jéggi faqastal yi daan leen. waaye malheureusement dafa dégluwul. Mhm. parce que bu dégluwul man la ma ko doon wax. boo commencé ba mu commencé ba léegi commencé woon naa ko wax. Mhm. mais sooy politique aussi Amadou Amadou Amadou aussi il n'est pas un politicien dafa yoru trop pour être un politicien Amadou est trop correct pour être un politicien Amadou est trop Amadou c'est un intellectuel c'est un démocrate. Mhm. politicien da nga am caay-caay politicien da nga am safara politicien dafa am ni ngay mel mais mënoo bàyyi ñu. moom moo ci lu mu wax dañ ko tëggal ay ndëgg sarax mais oo ay liet na nit ñi kaa leen jàppale ma togg autour du table élection yi ma dama ci wax bu sol o dernier moment la nit ñi ba deux ou trois dajale avec beaucoup de difficultés mais loolu di dama ak say moyens les gens sont loolu mënut te gañ élection Amadou Ba waroon na génn bu yàgg daw def porte à porte waxoon naa ko ne génn parcelle génnal ci bureau yi def porte porte daw dugg ci jaamu yàlla yi dugg ci lieutenant yi. Mhm. dugg ci ñuy am mbooloo wax ak ñoom dooleel leen. Mhm. pas ay association ñoo fee jóge ñëw nga recevoir leen parce que jox leen 10 millions wala 5 millions. pas ay mbootaay jóge fii kenn xamul ku ñu ànd ak ñoo ne xool les jeunes les plus ñi nga xam ne mbooloo topp na seen ginnaaw xool ñi nga xam ne franchement am nañ mbooloo bu déterminé. am carte mhm. am lépp. Mhm. militant bu amul carte zéro la. Mhm. dëgg militant bu amul carte c'est zéro. day mhm. faux. dëgg donc war a topp ku leen neex rek. nga xool xam nga jox cëru nit wàññiwul sa cër dara. Ousmane Nawel cër bi yaa ko moom jox naa la lii waa est-ce que wàññi na si cëram dara. mais les di la bouleverser di la jaxase ba nga foone mbir mi see jeex na foo dem du du politique dafa am lu mu laaj politique dafa laaj maanaam nit mun na lekk sa xaalis te dugg la. mais am na foofu boo jiitu si xol bi mën na lekk sa xaalis di waaye yow gën a bëgg wallaay dëgg la boo ko joxee xaalis mu bëgg la boo ko joxu xaalis mu bëgg loolu laa bëggoon mu jiitu ci xol yi d'abord mhm. mooy ànd ak gars yi ànd ak ñi nga xam ne dañoo am mbooloo ñu présenté ko mbooloo bi mu def porte à porte sol dàllam sol kakeem sol casquettam di ñàkk wàcc oto yi dox mhm. gauche dox droite waxtaan ak man Ba lii laa soxla sama programme lii la waxtaan ak ñoom mhm. donc kon lu ko léegi naa jiitu ci base mais malheureusement dafa toogoon fu mu toog rek waxul ak kenn benn responsable loolu nag moo nekkoon erreur bi waaye maa ngi koy ñaanal nag dëgg yàlla yàlla may ko une très bonne chance. d'autres mm-hmm. fois y a pas de délai a toujours une mm-hmm. mm-hmm. euh, euh, na ko yàlla mooy dimbale. loolu mi ber ber na daaram. ber na daaram léegi. na rek doon jàmbaar. Mhm. am caay-caay politique. Mhm. on avance. maanaam ça veut dire que yaa ngi koy bëgg wax ne ko lu mu daan nangu ba muy nekk ci parti bi en tant que chef de l' opposition ak yor parti bees des bu mu ko nangoo. is not is not is not is different bokkul bokkul moom la woon nekk bees ne daf ko am day tëggee ndey gi séex day jaaxaan. Mhm. day encaissé. di joxe. di déglu di yaatal. di ibbi. for fenkat bi. for waxkatu dëkk bi. for njublan bi. Mhm. for dóorkat bi. am mhm. na ñoom ñëpp di leen déglu di defar. Mhm. loolu la de waaw ah oui bul xeeb kenn politique addition la. Pape nga ko wax de. politique addition la te bu mu kenn bu mu nangu kenn ne ko di ko di ko di ko di ko xeexee bu mu nangu kenn di ko di ko di ko di ko di ko utal noonu bu mu nangu kenn di siis kenn man maay bras droit politique politicien doo am bras droit man maay numéro 2 man maay nangam politicien doo am loolu politicien ku ñëw danaa la maa jaay sama numéro 2. sang la dëgg la sang dëgg la ku ñëw daanaka yaa sama numéro dëgg la damay déglu mhm. ñëpp kontaan kenn warul dara waaye mu fexe tamit ba bu mu naxee bu naxee wul am ndam bu naxewul am gis nga mu am dara ci réew mi ah bien sûr bu naxewul gis nga mu am dara ci élection législative yi ah mais bien sûr pourquoi pas bu naxewul gis nga mu am dara ci élection ci élection locale yi 35 pour cent la ba waaw waaw ah, mais 35 pour cent bu ko amee bu jugaatee mun am dara mais nag bu naxewul bu amee détermination. Hmm. bu amee engagement. bu jógee am fulla ak fayda ànd ak ay góor ànd ak ñi tilimul je répète. waaw ñi tilimul. Amadou Ba. Hmm. ànd ak ñu tilimul waaye bés bu ànd ak ñu Sénégal yi rejeté ba pare bés bu ànd ak ñu Sénégal yi dàq ci biti ba pare. ma hmm. lekk xaalisu Sénégal yi. njublu xaalisu Sénégal yi. rey Sénégal yi arrogance yabaate. di tontontu bu ñaaw mu soo respecté nekk ba xaar opposition di nuyu man. man d'ailleurs man ku ma ci du la faale parce que ngay nekk ci pouvoir bu ñu la faale doo faale da ngay mel ni yow asamaan si doo wàcc nga yow yow xaar ba nekk opposition bëgg naa ay eh, may booy ay eh, non du ma la faale parce que fulla moo jaay Dakar ci noonu la ñu jeexal ko arrogance yebaate ñàkk kersa mais wul dara dafay xañe mhm. nit boo bëggee nit ñi da ngay ibbeeku yaatal waat dilaate mhm. yaatal ñëpp suturaal ñëpp ir ñëpp déglu lépp encaissé yëpp jéggal ñëpp mhm. am lépp